nuyu naa ñëpp fii laay tàmbale yéen ci seen revue de presse yéen sa kafe nga guux bala ngay naan bay si mbaleex li xew ci réew askan sunu gi yëgle kaay gi ne fit wu nii wax ci Sénégal yi de ca dëgg-dëgg tey laa ko gën a gëm gëmoon naa ko waaye tey fa ma ko teg mësuma ko faa teg waa ji daal man jaaxal na ma fexe naa lijjanti ba jot ci cinquante yi nga xamante moom la dimbalee social ca Espagne moom daal ab ressemblance la joué niroo waale ay ci ginnaaw bi ni nu ko na puusti maa la ko wax de waaja daanu na ma ne ngoyes nanu ko jàppes nanu ko léegi ko yëgle kaay ne ma ngay wax ba dugg yomb na waaye wax ba génn moo jafe de yëgle kaay gi ne waaji fi mu toll ni tembe ngoy noon maître Moussa Diop en garde à vue yëgle kaay gi ne ci instruction procureur moo ko xam le kaay gi ma moom procureur de la république ci jëmi boppam c'est autosaisi pour nag daal leeral mbir mu ni mel ndax wax li mu jot ci ay plainte kenn xamul nu mu toll yëglekaay gi ne métab taw ratatatatat tuy plainte yi naaw di dal ci kaw bopp maître Moussa Diop mi lee Jaaña Njaay ne moo accusation yi nag daa fondewul amul fenn foo xamante foofu la waaj mën a sukkandiku tegu ko fenn laa wax ma nga naan ñoom kay bu ñuy def seen politique nañ ko def rek te génn ci yi nga xamante ni kenn du ko kafe kafe daal balaa neex saf-saf ak jar fur foor tàng jër wax ji tàng na jër ne ma kaay ma wax Diop wax nag ca sûreté urbaine hey moom da dawul laa wax coow déedéet saala yaay ndeer daw ko ci lii de naan ku repp ci xare mbaa nga gis sa ndam ci xare lu la jiin nga xeeb ko libération yëgle kaay ni ma ne deal bi nekk ci exploitation jamaa bi lee moom assumé na lépp laa wax lu mu mas a wax ne moo ko dëggal mboole seen lu mu waxoon ca conférence de presse am ba daw ko génne document ya tàllal ci kanamu journaliste yi te naa leen protéger leen source yi libération yëgle kaay ni ma ak lu mën a xew de nature à jeter à la discrédit sur les institutions de la république ak division fausse nouvelle yëgle kaay gi moom les kay toppe Mimi Touré taxaw de moo ka xam ne moo di Guy Marius naan wax ji kay mbir mi dees ko waral leeral nañ ñi aw bëccëg ci rimaas ko sunu gaal gi lu ne lañuy trafiqué waa seetal ma lii nag ci lii de ku ma ko waxoon du ma ko gëm nañ dem ci yëmbal comique xam nga lu fa fekkam trafic parrainage parrainage ci jëmmi boppam laa la wax la di law di law ba police yëgle kaay gi ne Amadou Ousmane Ndoye bu Sénégal ca kanam yëglekaay gi ne des ko nax des ko rulle laa wax ci farine bi waaw baax na bañ leen a tey ci parrainage rek lu ci am ba des daal Amadou xam ni lu dul yoon yoon a ko gënde moom day leer na ko ni li muy def di yoon te bu nu ko jàppee mu delluwaat fa nga xamante fa la jóge woon yëglekaay gi ne ki may waxal nii de xam ngeen ko Modou Fall lay wuyoo alias Boy Djiné ubbil yéenekaay moom day xawma ko kaso ump waaye moom bokku seere ci kanamu procureur Thiès kaay bennub dëkk ñaari gaar xam nga fun ko jëmee fun ko jagat jëmee ñu ni ma ca njaareem ca parkem njaareem la jëm tey ci talaata bi yëgle kaay gi ne ñu jëm ci audience boo xamante audience décisif dëgg lees ko mën a dippee ca ndakaaru njaay jal joob ca tribunalum ndakaaru njaay jal joob yëgle kaay gi ne ci requêtub annulation de la radiation de Sonko liste électorale yi lépp tey lay leer nañ ne aw bëccëg mboole seen ñi nga xamante ne ñoom ñoo di leader yi waaw alliés yi nga xamante ne ñoo ànd ak candidat bii di Sonko ñoom ña ngay woote mobilisation bu fata taraj laa wax te naa taxaw nan fi nu taxaw duñ fa buus te kat mbir mu Ousmane Sonko mi saa su amee rek yëgle kaay gi moto yi leen di wax bu leen circuler ca jalb joob yëgle kaay gi essence itam kenn duur ko jaay ci butéel El Malick Ndiaye moom ni leen man daal li ma yaakaar fi ñu toll ni tembe mooy askan wi dem nañ récupérer ji seen ay carte laa wax looloo gën a wóor dalum xel maa la ko wax moom de xel maa ca élection yi lii quotidien yëgle kaay ni mooy dossier waat ko moom Ousmane Sonko am nga dernière chance dëgg lees ko mën a dippee ginnaaw Ziguinchor ginnaaw Cour suprême audience de la dernière chance dëgg ngi nii waa seetal ma lii nag ci ay fan dong képp rek dong des ñu buukale li nga xam ni moo di parrainage tëtëtëtët Sonko dëgg dëgg ma ngay jouer son va-tout yor yor yëgle kaay ni a waxaatal ci lii ah ni lu doy waar la te itam ah jamaa daa am valeur de ci réew mi lu nekk moo taxit affaire des jamaa gis nga machine judiciaire bi sàmbaal na dox na Mimran porté na ko Mari moom nee na mbir ma leer rek laa leer ba leer moo di ca Paris audience bi nga xamante ni moom la Amadou Ba am ci ki nga xamante ni moo di Abdou Diouf mi fi woon njiitum réew ma askanu sunu gaal yëgle kaay gi ne leer na bés bi la suur dem na ba naan Diouf parrain Amadou révélation yëgle kaay xam nga jàmbaar ji di Boubacar Ly jàmbaari Thiès Nord ji yëgle kaay gi ne moom Boubacar Ly s'impose na wone na bompam laa la wax fi mu toll nii tembe day ne yitteem jëpp mooy fexe ba Amadou Ba gagné laa la wax tey Boubacar li ne li muy wéy di téye Thiès Nord poñe ko ci loxoom comme ni ko mas di defee bulletin quotidien yëgle kaay ne moom moo saay-saay bi def lii wéy si def lii moom doy na waar di ab gérant boo xamante ab station lay géré ca Touba nu daal di faat nii lii de métti na lool te doy waar Khalifa Sall ca Linguère moom de ma ngay tourné di wax la fa metteeg la fa doy waar la nga xamante ne mooy jafe-jafe yi foofa fa Linguère jàpp ni moo ci am solution Dakar Presse yëgle kaay ne ma ñëwaatal ci mbirum maître Moussa Diop bile seul contre tous xam nga ko moom dëgg la si nemmeeku ci wàllum jama moo a jur coow li ñu nemmeeku ci jamono ji di sunu booy bii di wuy ci turu Lamine Camara yëgle xam nga tànki Pape Matar Sarr dëgg la jël daaw la nga xamante ni moom la Pape Matar Sarr jëloon di meilleur joueur waay waay may ma ñëw may ma ñëw ndaw li dàq football waaw gën a xarañ Afrique yëgle kaay gi moom la nu jox Lamine Camara ca dëgg-dëgg jar nga taggal say maam maa la wax lii say latiir bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba subaak jàmm ak salaam yéen doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Damel jaageen jëf ah mbokk yi jërë ngeen jëf jaageen jëf ah, na nga teesa kaasu café ñu fas yéene naan a baax a baax euh, jëm subaak jàmm ak salaam tey la talaata waaw waaw waaw waaw waaw 12 12 2023 ma ne 12 12e mois 2023 mooy 12 12 2023 <laughs> nuyu naa ñëpp jox ñëpp seen waaye waa Gosaas bëgg naa leen sopp naa leen man def naa leen ci sama xol gis naa ni ngeen ni ngeen taxawee ak ni ngeen di waajee bés vingt 24 décembre bi wax dëgg kontaan naa ci yéen waa Pirum Ndëri aw ma seen fay kontaan naa ci yéen waa Cees kaay aw ma seen fay waa Seew xay waa Gàdd xay waa waa waa fépp rek. <laughs> mbay waaw waaw man de man de aw ma problème boobu man noo wax ci kawtif fii de ndax kawtif fii moom mi nga ko gis ngeen leen leen man awma jafe-jafe boobu mën nañ cee wax waaye euh, sénégalais daal man sénégalais nag am na fi dëgg nag am na fi de yow yow Espagne nga defa naan da ngay aide cinquante cinq mille euro nga jéem a dugg ci euh, ay ressemblage mel ni ku nekk ci ci ci ci ci ci footballu lis ak footballu nawetaan ah la ci na nga nii jàpp nii mooy teel a ci ah waaye déedéet nag fit yenn fit yi nag moom ak xaru la fe ragal ba moo ragal des fois ragal dina la sauver ci lu bari waaye fitit des fois yenn fit yi mën na laa lor ci lu baree bare bari bare waxuma nag bu kenn am fit nit ki dangay am fit ci say droit fit fan laal ko soxlaa fit ñu naa ë <laughs> waa ji jàmbaar la waaye kii daa am fit <laughs> kii kenn du ko yeb mooy koo xamante ni ci dëggam ci dëggam lay taxaw ni deema deema ci jëlee waaye fit woo xamante ne ak càcc la fit woo xamante ne ak njublan la fit woo xamante ne da ngay def naka sudul noonu fit woo xam ne da ngay wax naka sudul noonu loolu du aw fit loolu ñàkk a xam li nga war a def la ndax waa ji bu xamoon li muy def nii nii nii li ko ciy fekk nii nii nii bu xamoon dañ ko ci ngoy nii nii nii du ko def waaye nag dëgg te nag dëgg te waay ah! yow yow yow yow yaa nga Espagne yaa ngay liggéey ah yow yow yow munoo lijjanti ba fexe eh, eh, te te noo amee ngay ngay ngay dugg ci lii ba ba ba lii fekk la ci nii aw fit nag yenn yi léeg léeg nag ragal moo lay may ngay analise ay lii su ko defee après wóorul ay lii bu ma ko defee bu ko diw yëg déedéet ah aw fit li ngay def bu dee dëgg la bu ci sóor ma sàmba bu ci sóor ma demba defal te xam ne di nga ci am solution yaa ngay yàlla waaye li ngay def bu dul bu bu fekkente leer na leen di jàll tegal sam xel nga ne waaw lii may waaj a def nii man man man man kan sax xaaral ma tudd wenn tur hmm, sëñ Abdou Salam Sarr moom duma ko tudd ci loolu nag kii euh, waaye yow man kan waay xaalim lum lum si déedéet du ko tudd ci yooyu de man fàllu ndaw waaw couture lii may waaj def nii bu ma ko defee ah, xam naa ni jubut de waa man bu ma ko defee lu ma ci nar a fekk nga teg la ca fekk fekk fekk bu dee leeree ni la la cay fekk yépp musiba la nga reculer reculer bi jiitu sax mooy boo tegee benn action gis ni jubul rek à la première heure la nga war a def mooy reculer dellu ginnaaw dellu ginnaaw waaye yow maa la wax lii donc kon gaañ Euh, ñi commenté ñëpp nag war nañoo tudd seen tur de waaw ah, waaw te dem nag jox leen dig daje ba subaak jàmm ak salaam maa la wax lii waaw ah, waaw maa ko diggee kat te kat diggee nag bor la ma ne ko diggee de bor la waaw waaw boo ko defut rekk war nga nag nag aca kon euh, aca kon ca kaw nag ca kaw a kaw kama fa daan fekk te na man di ko fa fekk mooy Serigne Abdou Salam Sarr sama xarit mu ni ma man itam maa nga ca Gossas vingt 24 décembre incha allah waaw jërëjëf sama waa ji kontaan naa ci yow yee ko baax eh, eh borom saabu yi waaw waaw baax na ba nga am cat ak ba nga maa nga bëgg bàyyi rek ba dem seeti ko ah Issa Dangoura maa ngi koy nii bu baax a baax El Hadj Ba maa ngi koy biggee di biggee Jibi Ba bu baax a baax a baax di biggee Papa Diop di biggee Ziz Brown yee kooku sama xarit la nag Ziz Brown. ah kooku sama xarit la maa ngi koy invité ci sunu F24 décembre bi mu jóge ca Colobane ñëw ko sax wone boppam ay fay maa ngi koy nuyu Binta Sarr bëgg naa ko Baye Moodu Yaddi tem maa ngi koy bëgg Lamine Ndiaye maa ngi koy nuyu bu baax a baax El Hadji Ba maa ngi koy bëggee waaw waaw nee na ma moom it le 24 lay waajal di yee laat Diop Touba xaadim lum lumi si nag Esprit Gossas TV am nga ay ay kii de am nga ñeneen ñuy waaj bis fi de waaw ah, baax na waajalal Fatoumata Bintu Diallo maa ngi koy bëggee Oumar ma bigge géey maa ngi koy biggee Kéba Aja nuyu naa ko dam kunta nuyu naa ko Pulo maa koy biggee sama xarit la moom sama nit la maa ngi koy biggee Mia Diouf jox naa ko wàcc waayam bu baax a baax mari Mariam maa ngi koy biggee bu baax a baax Absa Guèye maa ngi koy biggee waa Esprit Gossas TV nee nañ jour ji mooy treize waaye yéen yéen yéen yéen tiitoo leen amande ah, tiit naa ma yéen bis ba dikk na di waaw baax na ah ziare Fall Damel Sam Seck maa ngi koy bëggee bu baax a baax Cheikh waa Dite maa ngi koy nuyu xam nga édition la chaque année la benn yoon lay doon ci at mi moo tax rek mu ngi noonu daal mi ngi noonu daal moom daal Maodo Kane maa ngi lay nuyu ah Ngañ Joxum ba maa ngi lay nuyu bu baax a baax Mor Seck maa ngi lay bëggee waaye nag le maire Adama Diallo waaw DG Petrosen Holding SA waaw wax dëgg yàlla daaw moo porté woon événement bi yëpp def lim ci mën ak lim ci mënul ren jiit mu fës seen faa defati lu ni mel kon nag Adama jàlloo ci sama kàddu gosaas yëpp bég nañu ci yow ndax ay doomu gosaas lañuy ñuy sargal nga jóg taxaw ni sargal bii kat noppi naa ngir taxaw lépp loo xamante ni lu ca war a dem la ma def ko jàppale leen ci bu baax a baax a baax a baax a baax ah kon nag Adama Diallo ngàcce ngalaama maire bu gosaas jërëjëf esprit gosaas TV ànd nañ ci tamit ak maire yi nekk ci département bi yëpp ci laas puy njenne lagan daam Njaay ba fële kolabaan patar liya ñu ne ma jibi caam waa jur ñu ne ma jaaga waaye honorable député nday jaa ma nga faa ah waaw nga dem mbar ñu ne ma mbay chambre gosaas nu ñëwaat président conseil départemental maître Kouyaté sama xarit ah ak jeunesse bi yëpp ñoom Assane Dia ñoom ñoom Ibrahima Ba ñoom ah ñoom xaar ñoom nee nañ ma dañuy ñëw waaw waaw waaw waa somb yi ñëpp nee ma dañuy ñëw <laughs> waa baax na baax na daal ah ñi waa bis baa ngi noonu nag na ko ñëpp waajal gaañ kon ma jox leen dig daje ba subaak ak jàmm dama leen a namoon jërë ngeen jëf.